ñépp nag jamono ji ngemm nañu nag fas yéene jàkkaarloo ak ñii di waa Benno Bokk Yaakaar l'info yëglekaay ne combat bi kay moom jamono ji nag tàmbali na Bougane Gueye Dany nag di fa xam le ni du bataille juridique mooy tax a reculer nguur gi fi nekk waaye nag faaw nga taxaw defanteeg ñoom defante ak Macky Sall ak ñoñom nag jaarale ko ci ay caravane bu ñu dippee doggali Benno loolee nag la ñu bëgg ñoom rëkkale yi doon janoo démb ak taskatu xibaar yi Bougane Gueye Dany Aminata Touré docteur Abdourahmane Diouf daañu def seen kéem kàttan ba liberté moom askan wi amaat ko ba noppi nag daal di féexal ñi nga xam ne ay prisonniers politique lañu njëkkee ko ci kii di Ousmane Sonko tribune yëglekaay di p ko doggali bennoo ngir mën fee jële régime bi fi nekk biiru Habib Sy nag tey jii ci la yëglekaay bi di l'observateur xëy daal di taxaw jëm ba tey ci élection présidentielle yu 2024 force ak faiblesse yu candidat boobu nga xam ne rek daraam leeragul ñi seen dara leeragul kay jamono ji mooy ñaar fukki candidat ak benn yi nga xam ne rek juróom-ñaari charge la ñuy déglu ngir xam seenu ëllëg ci les élections yeneen i ndëgg sërëx yu leen di xaar loolee nag enquête quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu jëm ci wàllu doxalin gekk saytu gi ñuy amal ca conseil constitutionnel lu jëm ci coowal nationalité bu may sa Wade lii lépp yëglekaay bi dellu suwaat na ci Vox Populi moom dëkkurwaa la daal di xëy ne fàng ci xëtam bu njëkk muy àddu ci système informatique ba nekk foofee ca conseil constitutionnel nag moom Mamadou Diop dëkkurwaa nag di ko ŋàññi bu baax a baax ci biir yëglekaay bi candidat bi ñu dëkkalee na machine buy bëggee moom la ñuy gis ca conseil constitutionnel àdduna ci coppite yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci ci bile format nag waral ñu daal di ay candidat yu bëree bëri yër yëglekaay bi lum ci mënti doon daal Bougane Gueye moom ma ngay dànkaafu ci biir Walf Quotidien nag ma ngay xam ne ne daal danañ def seen kéem kàttan rek ngir jële fi ngurug Macky Sall seenuk ñàkk a bokk nag ci élection présidentielle yi kii di Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf la séglekaay coup d'état électronique la ko dippee retour des cas bés bi le jour daal di duut baaraamam ci nationalité bu Karim Wade bi nga xam ne rek war na koo jébbal ngurug Sénégal moo Khalifa Babacar Sall yéenekaay bi ne lii dafay nduru daal jamono ji Abdoulaye Wade rek doon xamle daal ni candidature bi Idrissa Seck ak Macky Sall nag mënee su la nekk nag ndax ñoom ñooñee nanguwu ñoo fay impôt donc nag ku dul fay impôt mënuñu laa jiital ci bopp réew nga di ko jiitee professeur Abdoulaye Dièye di samp ab laajte ne lan mooy doon nag position àttekat bi ci kanamu ñaari candidat yooyu nga xam ne rek dañoo am ay amande yu ñu gàll ci seen ndodd ci boobee jamono nag Abdourahmane Diouf moom di yëglu ba tey nag ci lu soxal candidat Bassirou Diomaye Faye mu jàpp ne nag dara leeragu ci journal le quotidien nag dellu siwaat ci Amadou Ba mi fësal nag yéeneem ci taxawal nag ñaar téeméeri junni ci wàllum xëy nag jagleel ko ñii di ndaw ñi solo yëglekaay tey taxaw seetlu la def ci relation particulière bi am ci diggante Sénégal ak Mauritanie yéenekaay bi ne ñaari njiitu réew mi muy Macky Sall ak Mohamed Ould El Ghazouani ñoom ñaar ñi nag ku nekk am nga kóolute gu rëy rëy jëm ci sa morom réew mi people tey duñu xamalek artiste rappeur bii nag di on lyrical ni mu def tey jii nag ba mu ne boppam ci milieu artistique bi yër leen yëglekaay bi séq na ci waxtaan ak Diana Thiaw wàllu tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale ak suñu làmb miy dellu siwaat nag ci lamb ji war a dox ci diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène juróomi fan ci weeru mee nag ci la ñuy amal seen nappante bu njëkk nag mu di ab face à jeexale yëglekaay yi ak Thierno Cissé mooy candidat bi nga xam ne rek yoon da koo tegoon loxo ginnaaw ay faux documents yu mu déposé woon ca conseil constitutionnel moom Thierno Cissé nag jamono ji yoon daan na ko juróom benn weeru kaso ak cent mille francs yu mu fas yéenee fay nag mu di amende ginnaaw bi ñu ko tegee loxo nag ba mu jàkkaarloog àttekat yi